ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ginnaaw ban sante borom subhanahu wa taala di julli ci sang-sang bi sayyidina muhammad alayhi salatu wasalaam ñu ngi nuyu mbokk internet di waaye tam di nuyu mbokk bitim réew ak ñi nga xamante ñu ngi safoo di seetaan seen chaîne El Vision Média ñu ngi leen di ziyaar bu baax a baax di leen wàccee seen wàccuwaay leen ñaanal jàmm ñëwul nañ seen deuxième seen deuxième émission bi nga xamante ne mooy taaru diina ji taaru diina ji boo leen ko déggee lépp loo xamante ne ci këru diina yi dañ fay dañuy ànd yéen waxtaan ci jàngkat yeeg ñuy nekk ci musique afro arabe bàyyiwuñ kenn tey ñu invité kenn ci jànkat yi ndaanaan ci biir ndaanaan muy Moustapha Dieng Moustapha nekk tàggatu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk si waa kër Maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul moom lañ invité tey fas yéene waxtaan ak moom incha allahu rabbi Moustapha asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu te leen siyaare bu baax di ñaan yàlla sëñ Muntaxa Basiru yàlla na fi yàgg lool te wér ak mboolem xalifa généraux yi nga xam ñoo nekk ci biir Sénégal gi yëpp ñoo ngi leen di delloo nuyoo bu baax a baax a baax Moustapha ñu ngi lay fay nuyoo di la ziyaar yi tamit di la ñaanal jàmm waaye tamit du nuyu kilifa diine yëpp kilifa aada yi tam ñu leen ñaanal bu baax a baax su ko defee ñu dugg ci question yi rek Moustapha Dieng Moustapha kañ nga dugg ci tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw loolu de naa ci sawar a tontu loolu ndax tagg yonent bi mën naa ni bi ma jógee ci daara ji tawfeex wala ilham di di ci nuyu suñu sëriñ bi ñu doon jàngal alquran mel ni baa Ibrahima jàlloo ak sëriñ Mbacke Bey ñoo yoroon daara ji daara ji nag li tax mu amoon solo daara ji sëriñ Saliou Mbacke moo joxe xaalis bi ñu jënd pàkk bi moo tax daara ji barkeel yàlla dogal fa lañ jànge alquran fa lañ jànge xasaayit ba génn fa doon ay jànkatu di di di def nii ñuy def di tagg yonent bi waaw loolu moom fa lañ ko dooree ca daara ja mën naa ne ba ñuy doon baas rek fa lañ ko dooree ba jamono ji fi ñu toll. kon Moustapha jaaru ci benn loxo moo def ko dafa jógee ci euh, daara ja rek commencé tàgg yonent bi. waaw koo gis rek am am na fu mu jaar du ñàkk waaye daara ja mooy doon njëlbeen gi. wa moy doon jël ben gi fa lañ fa lañ eh, jàngeem jàng waaye buñ génnee nañu ay mak ay nit yo jaar ci ñom di di nyom ak ñom ci xassay ñu doon say kilifa doon say mak melni ni ñan. ñu melni mën na ci cité serigne Papa Diop serigne Alla Kane Touba Yimbal ak serigne ibrahim Mbaye ak jankari bari serigne ibrahim makere bari na dal mag ñu bari serigne Mouhamadou Ba ba jaar na ci ñoo ñep serigne Khadim kebe serigne Khadim geey di di len tarbiyu dal di len tarbiyu ci jang ba tey fi ñu toll tey. Moustapha Dieng day faral di am ay day faral di engage ay programme wala ci daayira rek la yem. waaw dinaay jàng ay programme dinaay jàng ay programme bu baax sax. yaa ngi engagé sa bopp ah. waaw directement koy man nag yàlla dogal na jamono ji maa koy kuy kuy waxal man ngay waxal. waaw man ngay waxal buñ juboo rek ma ñëw jàngal la. kon Moustapha Dieng am dafa ber group boppam. waaw yàlla dogal na nag ci 2017 euh, bi ci lañ am suñu groupe bopp tuddee ko mu xaddamaatul am daa mu euh, muxaddamaatul am daa yàlla ab xasaayit la bu sëñ Touba bind muy sëñ Touba moo ko moo ko way yonent bi daat koy daat koy tuddee njiitalu way yi maam way yi mu way yëpp dañuy way wi moom moom laa ci moom laa ci jiital mu doon première moo tax mu muxaddamaat googu moom laa tuddee man dama ko bëgg moo tax ma tuddee ko groupe bi daanaka sama lépp moom laa ko tuddee waaw sama lépp moom laa ko tuddee moo moo tax groupe bi moom lañ ko tuddee muxaddamaatul am daa waaw moom lañ Moustapha moom ci métier way bi kese lay yëngoo wala dafa am beneen métier bu bokk la métier waay bi. waaw yàlla dogal na woon ñi ngi doon liggéey téer yàlla dogal na nag ñu bàyyi ko am beneen liggéey bu ñu nekk ah, waaye yamuñu ci njàng mi kese ñi ngi ñi ngi sàkku lu leew kon ni ko ñëpp di sàkkoo buñ fa noppee rek daal di kon di nekk ci njàng mi waaw Euh, mi ngi noonu gis ngeen Moustapha li mu jotee présenté wu am na solo macha allah dañ koy bàyyi tuuti mu taggal ñu yonent mi alayhi salaatu wasalaam wala mu taggal ñu sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ci bindu mag ñi ay ci Moustapha. ya bismillahi rahmani rahim. wa wa mawlana muhammadin. wa ala wa sahbihi wa sallama taslima يا من بأمداي تاتني البشر يا مصطفى يا رسول الله يا بشر يا من بأمداحه تاتني البشر يا مصطفى يا رسول الله يا بشر صلى عليك بتسليم بلا عدد باخ قديم له أشياء والقدر يا منتقى يا رئيس الأكرمين مهن يا من بأمداهه حن انتفى القدر صلى عليك بتسليم بلا نفد من لا شريك له والاسم محتدر يا متبا يا إمام المرسلين مهن يا من لخدمته ما است أبتدر صلى عليك بتسليم بلا كدر man jaadali bi ka fii daaray ni yaa ba ma man maa leen nooyoo loolu waaw bi am na solo macha allah li nga doon jàng xasaayit la waaw xasaayit la bu sëñ waa bind ziyaare ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que mën nga ñoo wax lim lim ko ziyaare yonent bi ndax mi ngi zi dafa ziyaare xasida gi moo tax xasida gi sëñ Tuubaa mi ngi ko bindee ziyaara mu daal di njëkkee euh, si xasida gi tàmbalee ko yaaman bi am daaxi taati niyal basharu yaa Moustapha yaa rasulallah yaa basaru sëñ Tuubaa boo xoolee eh, xasidaam yi yëpp yonent bi rek la ci way bu no bu doonul yi mu way yonent yi rek day doon yi muy bàkk yàlla di leeral ne suñu borom kenn la nguuram gi bokk ko kenn xasida gi nag dafa bokk ci xasida yi nga xam ni daf ñoo neex ndax sëñ tubaa da koo ziyaare jo yonent bi looloo tax ma taamu ko ngir ziyaare leen ko ما شاء الله أمنا صلوا دين قليم وحنينا لولو تهمو تامكو في بور زيارة لكم بوك نجي خمان تاني في ستان الجون وايتم بوك انتون دين هم أقوى بيتي بريو سنمو سفاجي مولين زيارة حسيدة بوب نغهمني سنو مامشا مدو بام بحادم رسول مكو بين نغهم لبم يونتي بل عليه الصلاة والسلام واي لبم برم سبحانه وتعالى لغين لكو بخي دم واي نتم ينك سن جنا ورك فسيني عند كلفة ديني أكلفة آدي بور فسيني دتل لين لغهمان تاني مو أم فيتي سنغال أكتم إمشوا بغهمان تاني مونك تاو ديني da leen indil euh, kilifa ñi nga xamante ñu dugg ci tàgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam su ko defee dañuy continuer suñuy euh, question ak Moustapha Dieng waaw Moustapha folklore bi nekk ci jàng yi noo ko gisee. waaw folklore bi de man ni ma koy jàngee mooy ñun moom côté boobu ñu ngi koy dégg rek. Ah, bari waaw bari na waaye yàlla dogal na ñun euh, xëy na nag olof Njaay di wax ne am na fu mbir di toll boo nee du ma bokkuma ci du tax nga génn ci ndax ci laa bokk ci géew bi. waaye ñi miin sama njàngin miin sama njàng ci barab yi xam nañ ni man damay jàng xasaayit pire xasaayit rek lay jàng waaw damay jàng xasaayit bu wér. boole woo ci euh, li nga xamante ni si wàllu àddina waaw dina dinaa jàng olofal nag waaye olofal olofal yi day wér ndax day doog olofal yoo xam ne sëñ Bay Jaxate wala sëñ Musaa Ko wala gaa yi nga xam ni dañoo dañoo woy sëñ Tuubaa lu wér. ñu ñu jël ko tag ko di tag ko señ touba ñu ne ñu jëlaat ko diko tagat señ touba waye lolu munta munta ñak ci bo jangé xassay ndax olofal yi biñ koy bind señ Moussa ak señ Bay Jaxate fek fek na fi señ bi fek na fi señ Touba kon lolu tax olofal yoy day wër lolu tax it ñu nit buñ jangé ba yeen waxtu dinañ jël ci olofal yi barkeelu ci ngir ngir tax am ma sha allah amna solo neen ngir tax am barke euh, Moustapha am nga am nga euh, génnee nga ben CD wala waaw yàlla dogal na nag euh, bi depuis ñuy liggéey ba léegi dafa amoon lu ñu manqué woon muy groupe ndax jànkat boo gis muy dem war naa am staff mooy ñu ko taxaw ak groupe bu koy aw yàlla dogal na ci année bi lañ ko taxawal yàlla dogal na it jamono ji dugg nañ studio am nañ lu ñu def ci màggal gii di ñëw muy eeru boobu ma xam ne ñi ma baaxoo dégg bi ma ko fente yàggul ma fend ko def ko ci màggal gi xam naa ne na ko murit yëpp xaar. waaw air bi ngi cee ñamal tuuti benn single wala dafa dafa. air la nag waaye dina laaj aw nag. Ah, dina laaj awu. waaye léegi ma ko defal euh, boo xamante ne yow kese la. pour nga ñamal ñu si tuuti. màggal gi moo di ndigal di leen lu mu fi waxal. boppam te daa ko digal murit yi koy gëmmate waaj leen de waajatina man mii de jekkatina di waajal sunu bis bi bis bi de moo di màggal gi sunu màggal gi na kon réew mi na murid yi béggati nañ ci weeru màggal gi noonu ko waaye daal ba am na yeneen yu ci nekk waaye dañ koy def à ba ci kanam ah macha allah neen da koy def à suivre ba ci kanam ndega loolu single la boo xamante ni mi ngi koy waajal eh, ci màggal gi di ñëw incha allah rabi ñu waaj ko eh, ñu waaj incha allah rabi single la boo xamante ni ñu ngi koy waajal ci màggal gi di ñëw incha allah ñu waajal ko Sénégal yëpp xam ni Moustapha Diagne na indi single bu bees tàkk incha allah waaw Moustapha yow di nga baral di nga faral di gëstu téere yi lu bari waaw téere yi nag dinaa ci faral di gëstu téere sëñ Touba kese wala këru mag këru diine ndax ko tey bu la ab tijaan woowoon tey ji ne la taggal ma yonent yow laa bëgg nga taggal ma yonent est ce que di ko mën waaw loolu dama koy faral def moom yàlla dogal na boo de ndax li ma ci jublu mooy euh, mag ñi dañoo dañoo rafetaloon seenug démb kon ñun suñu tey dañ ko war a rafetal ndax yàgg-yàgg dañ dañ fiy bàyyi dañ fee bàyyi ko beneen génération ñëw comme que yàlla dogal na Seydi Hadji Malick ak sëñ Touba rafetaloon nañ seen seenuk ay ba mu rafet ñun ñi koy tagg kon waruñu koo mën a ñaawal yàlla dogal na gëstu naa ci xeetu tarixe yu bari seen xeetu njàngin rawatina nag tijaan yi nga xam ne ñoom laa gën a ndax sama wajuru góor wajuru jigéen tiijaan la moo tax ma gën cee gëstu macha allah dégg ngeen li Moustapha wax nee na gëstu na ci nga xamante ni mooy téere yi nga xamante ni mooy sunu yeneen këru diine yi muy ba di layan ba di murit ba gëstu na ko bu baax ba tey ab tijaan bu ko woon tey ne ko sama programme yaa ma ko jàngal Moustapha dina ko mën a dem jàng ndax gëstu na téere Hadji Malick bi am na solo Moustapha yow sa staff yéen a ngi préparé pour defal seen bopp benn programme wala da ngeen nek nekk di wërtu di kii di jàng ci programme bi waaw yàlla dogal na defoon naa bis bu yàggul waaye li nga wax it lu am solo la mooy staff bi am bisu boppam loolu it xalaatoon nañ ci jamono yële waaye bokkoon na ci sama bis bi wàccaay bis bi moo tax ñu ñu tegaat bis boobu waaye xam naa yii ñu nekk bu weesoo tuuti rek danañ ko taxawal def ko bisu group bi mu xaddamaat xam ne ñooy moom bis bi ñoo koy taxawal yaatal ko war éviter ci ñëpp ñëpp ñëw waaw incha allah. sa group bi li nga ko tuddee nga ni mu xaddama. mu xaddamaatul am daa. mu firi lan. mu xaree mu mu firi njiitalu tagg yi. waaw. la moo tax nga choisir loolu. waaw ndax xasidi Euh, yàlla dogal na man liñ ñaan murid dañ naan xasida gi laay durus man xasida googu laa féeteel xasida googu li ci sëñ Tuubaa wax yonent bi waxu ko ci benn xasaayit sëñ sëñtuwaa sax moo moo moo waxoon ne moo moo moo wax ne xasida gi bu bu bu bu bu guddi jotee nee na lim bind lépp day day day nekk ab néeg muxaddimaat day nekk ab néeg nee na bu guddi jotee xasida yëpp ci moom la ñuy fanaan waaw nee na lim bind yëpp ci xasida muxaddimaat la ñuy fanaan par guddi loo tax muy nekk xasida gu doy waar waaw ndax sëñ Tuubaa da koo way ci muxaddamatul am daa araf bu nekk da ko way benn bunt kon wasixtu arumu naxa niya katabtu li rabil baraaya noonu la ko jàppoo ba maqamatu ba ba ci malatu muy fin bi te sëñ Tuubaa araf bu nekk rek da ko da koo bind douze bayit liñ naan douze way noonu la ko noonu la ko sëñ Tuubaa bindee waaw macha allah am na solo gis ngeen mi ngi noonu Moustapha Dieng réponse question réponse yi am na solo macha allah waaye Moustapha man daa am benn way boo xamante suñu maam Chamadou Bamba Xaadimu Rasuul du ko bind mu nekk kun kaati man dama bëgg nga jàngal ma ko soo paree nga firil ma ko eh, ma sama mbokk eh, jeunesse bi nga xam ne li ci sëñ am na solo macha allah kun kaati laa bëgg nga jàngal ma ko soo paree firil ma ko bismillahi wa sallallahu muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كن كاتما لدور والبساتنا حسدا وتعالوا الجيل يا متعلم كن كاتما لدور والبوساتنا حسدا وتعالوا الجيل يا متعلم نائي الكواحب والغواني واعتزل إن تدل من حامردا لا تسلم لا تستري دنيا بأخرى يا فتى من باء نورا بدجا فسيندم xasida googu sëñ Tuubaa mi ngi ci wax da ciy wax ab ndaw bu tollee ci war a ut xam-xam war a jàng mu ne sëñ Tuubaa da ci wax ne bul bul bul bul woo dara lu dul sàkku xam-xam te it nag euh, si biir sàkku xam-xam gi sëñ Tuubaa mi ngi lay wax li ngay li ngay ndaw bu bëggee rëcc li muy li muy maytundiku jeeg jeeg gi ak njegamaar yi ak janq ji sëñ Tuubaa ci bayit bi ci bi koy tëj ci naayul kabaa la ko wax naayul kabaa xiba wal kabaa nii waxta zil mi ngi ciy wax ji yow mii ndaw na nga maytul jànq ji ak jeeg ji ak njegamaar yi sëñ Touba daka daan tere mag ñi lu bari ci njaareem jigéen ñi soxna yi daraan bañ naka dafa utoon ay kees ngir bañ soxna yi ak góor yàlla yi di di jaxasoo daan na wax ni kees soxna yi góor yàlla bu leen fa fekk na la mën naa waat ni li ngay sàkku ci kër gi doo ko am far yàlla dogal mu tegaat ci beneen bayit laa taster yi dunyaa bi oxra yaa fata man baa anooran bi du jaa fa sa yandam mu ni bul jaay sa leer mukk di ko jëndeeg lëndam ndax bu ëllëgee da koy rëccu bayit boobu sax firi nañ ko ba di ko di ko di ko jàngaat ci ginnaaw bi ñu génnee xasaayit gi waaye bayit boobu li muy firi mooy yow mi ndaw bul jaay sa leer mukk di ko jëndeek lëndam maanaam bul jël sa or dem ba ci marché ba di ko jënde ab ban ñu lay jox ab ab lamu lamu armiñong waaw Sëñ Tuubaa dane mi ngi tere nga nga jël mel ni nga yor sa or dem ba ci marché ba joxe or bu bari 21 carats ñu ñu ñu ñu daal lay jox ñu daal lay jox kilo kilo kilo kilo armiñong noonu la demee rek Sëñ Tuubaa day tere yow mi ndaw ngay ngay jëndee sa leer di ko la lëndëm suñ tubaa loolu wax ci biir boobu macha allah déggeelu suñu maam Chamadou Bamba Xaadim Rasul wax ci lu kunkaati man man bind boobu macha allah daf ma neex ndax ndaw ñi la ciy waxal waaye tamit ndaw ñi la ciy conseillé comme li ko Moustapha Fiyee macha allah am na solo ah Moustapha yow ndaw nga nga gis ndaw ñi ñoom ñu ngi dugg ci euh, wàllu leneen loo xamante ni bokkul ak suñu diine yow nga choisir tagg yonent bi la moo tax nga choisir tagg yonent bi. waaw tagg yonent bi tax mu neex ñu mooy dèjà yàllaa ko njëkk a tagg yàllaa njëkk jël métier bi it moom daat koy daat koy utiliser ci yonent bi ndax yàlla moo ko njëkk a tagg wax ko ne ko wa innaka la ala xuluqin azim wa innaka la ala xuluqin azim googu sax moom la Sëñ Tuubaa bindee muxaddamatul amda maam njëlbeen gi da koo bindee innaka la ala xuluqin azim waaw gi moom la tàmbalee ci wasextu xuluqin azim miim ga moom la moom la bindee malaktu noonu la jàppee araf par benn di ko dagg di ko di ko bind Euh, yàlla comme que moo jël métier tagg yonent bi utiliser ko wax na ko sax ci wal malaayikatu yusalluuna ala nabi yow yaa ayyuhallaziina aamanu maam chaque jour maak samay malaaka dinañ tag dinañ dinañ julli ci yonent bi digal dinaa digal samay malaaka maak samay malaaka ñuy ñuy julli ci yonent bi kon bu yàlla dogalee yàlla suñu borom bi nga xam ne moo ñu sàkk mu jël métier tagg yonent bi dëkkoo ko saxoo ko kon ñun ñiy jàmm war ñoo def loolu tagg yonent bi te métier buy nit di def ci aduna rek tag yonent bi moo ko gën a baax moo ko gën a riis moo gën a am maanaa te moo ko ëpp fay te balaa nga koy xam ñu dem ba yemal xiyam danañ xam ñi doon tag yonent bi euh, ban fay la leen yàlla dencal waaw insha allah euh, waaye tagg yonent bi dafa bëri ay façon yow est ce que dañ nga cee dugg pour am ci payooru borom subhanahu wa taala wala dañ cee dugg ngir payooru àdduna waaw yàlla dogal na nag yonent bi moom la yàlla fayee moom la yàlla yàlla da ko bëgg yàlla moo gën a bëgg yonent bi ci àdduna mboolem ku bëgg yonent bi rek yàlla nga ci jàppale te yàlla moo dul d'accord sax ku bëgg yonent bi di dox ci moom mu lay ñàkk yonent bi boo xasee tudd turam turam ci ndaje dina yàlla dina def ci xolub jaam mu yëkkati ay teraanga jox la kon loolu jarul sàkku ñun nag liñ ci sàkku mooy am ci am ci am ci ngërëmal yàlla am ci ngërëmal yàlla ndax suñ borom suñ suñ suñ suñ tubaa sax daf ñoo digal ñun ñi nga xam ne ay taalibeem lañ bul def dara yow murit bi lu dul loolu da nga ciy sàkk ngërëmal yàlla mu ni nelaw sax si suñ tubaa wax na ni nelaw sax yow murit bi boo koy def nanga ci ciy sàkk ngërëmal yàlla xam ne booy tëdd na nga fas yéene nelaw ngir yàlla kon ñun jàng xasaay gi ñuy def nii di ci tag yonent bi dañ koy def ngir jëmbi yàlla ak jëmbi sëñ tubaa waaye di ci jàppale sëñ tubaa ndax sëñ tubaa dañu woon ci xasidak mawaahibu naafi dañu woon antal karimu annal xadimu dëhran adimu udimu fii ka sanaa sëñ tubaa dañu woon sama giiru dund dama koy way yonent bi léegi sëñ tubaa bu fi nekkatul ci zahir day mel ni kon day mel ni tàgg woowu dañ ko war di ne kon léegi ñun ñoo fi nekkal dëxru di mu fii ka sana ay googu mooy ñoo ñoo war a konne mission eh, jàppale sëñ tubaa ci tagg gi mu waroon tagg yonent bi ci ba jamono jeex kon ñun ñoo nekk ci dëxru di mu fii ka sana yi looloo tax ñu nekk ci boo gisee ma laaj la question boobu euh, takkatu yonent yi alayhi salaatu wasalaam en général boo lay ci programme dañ lay joxal dañ lay laaj euh, paasu kañ ñaan la jox ñu njëgu gasoil te njëgu gasoil macha allah day duun loolu war a ñu laaj la loolu. waaw loolu de moom mënut a ñàkk nag. mënut a ñàkk waaw mënut a ndax ndax eh, ku bàyyi ku ba ku amul lu leen da koy fonk yaakaar naa ni menuisier bi boo ñëwee ci moom ne ko defaral ma lal danaan la temps nga may jox. ah bi nga wax de. waaw waaw menuisier loo gis rek métier la secteur boo gis dafa am ñu ci nekk ña ca nekk nag ñoo xam lan na mbir may doxe waaye tagg yonent bi damaa wax ni kuñ ko defal sa kër. Euh, boo dee asgor sax war ngaa miraas sa kër joxe ndax yonent bi bu dee bëgg nga ko ab jaam jóge bàyyi ko fenn ñëw ba ci sa kër taggal la fa yonent bi war ngaa war ngaa ñuqi sa kër yëpp jox ko doo ko joxe ngir jëmm ji waaye da nga koy joxe ngir yonent bi te boo ko joxee yonent bi delluwaat joxaat la lu ko ëpp waaw loolu rek a tax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 الأصغان قد فجأ بجاه أفضل من لله قد لجأ حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملا محمد صلوات الله في أبد عليه في حسبه كل بكلام أدعو إلهي الذي عمت مواهبه لجملة الخلق ما يقتار من برا ناجيت جل أغواما وكرمني تكريما وكل من لخد بريا رحمن وابل جميع هلق القرامة من يغني عن سر من قرآنه قرأ قدمة المصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى أنا صبي سيدنا محمد قدمة المصطفى عن كل مفسدة وترحم الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن حود ارحم جميع الورايا ديا ردا محوت ما قد قلب من درر بجاي أفضل من لله قد لجا جرنجن جف macha allah am solo ko bind loolu loolu sëñ tubaa ko ci tag min ci tag lepp yonenti bi seigne touba bindam yep yonenti bi alayhi salatu wassalam leppam mom sëñ tubaab mën naa ni yëreem ak i dàllam sax dañ doon dagg yonent bi. yonent bi ndax am na benn waay bu mus a jaar ci njaarim benn waay di di romb di jaay rosool yi rosool yi ñi xam mu mu mu daan laajal leen ma daa mel ne damay dégg sama sama baatu sang bi mu ciy wax. ñu ko Mbàkke de kooku de rosool lay jaay mu ne nañ ma ko wool mu ñëw mu daal di jënd rosool yëpp ñu ne ko Mbàkke di loo koy doyee mu ne nduróo gi nduroo sama turu sama turu euh, soppe ba rek moo tax ma wecceeku ko waaye doyoo ma ko dara waaw lu sëñ Tuubaa moom mën naa ni léppam daa bëgg yonent bi ndax daan na tàgg yonent bi foo yi mu daan bindee bu egsee ci turu Muhammad da koy bëgg a bindee turu Muhammad turu maanaam daa bu xonq ndax mu mën a rafet léeg-léeg sax nga gis ko ci bind yi ñu koy bind gis turu yàlla ak turu Muhammad ñu koy bindee daa bu xonq waaye bi mu demee ba daawam bu xonq ba mu ko daan bindee jeex Euh, daa daa daa daa jël ci xalima gi dagg dagg ci loxoom daal di capp ci deret ji di ko bindee turu Muxaddam kon loolu moo demal ne Sëñ Tuubaa moom moom moom daa bëgg yonent bi ba jeex ci moom seey ci moom jeex tàkk waaw noonu la demee. macha allah gis neen Moustapha Dieng lañ invité woon li ñu desal ci waxtu bariwul dañ koy bàyyi mu joxe dernier moom rek incha allah rabbi mu ñu tàggoo tàggoo bu lu tàggoo incha allah Moustapha looy tëjee. waaw maa ngi leen di sant bu baax ci émission bi ngeen ñu ngeen ñu invité d'abord maa ngi leen ci sant bu baax. ñaan yàlla yàlla na ko yàlla barkeel kër gi ñu koy defee muy El Vision euh, borom kër gi di El Hadj moom it ñoo koy sant bu baax moom it suñu mag la suñu wëllëre la ku ñuy jàppale la yàlla dogal na sax am na lu ñuy liggéey ak bërëb bi bu yàlla na ko yàlla sotti ak jàmm ci màggal gi lañ ko fa yéenee génne yàlla dogal na ñi ngi ci liggéey bi di ci liggéey waaye incha allah na soppee yëpp xaar xam ni seen soppee mi ngi liggéey te bu génnee rek lépp dana baax waaye ñu ngi lay sant yow it soxna si di la ñaanal sa liggéey barkeel bu baax ak mboolem ñi gaay yi nekk ci kër gi yëpp jërë ngeen jëf. macha allah jërë ngeen jëf gis ngeen euh, Moustapha Dieye lañ invité mu nekk tàggatu yonent bi alayhi salaatu wasalaam Ba sunu waa kër maam Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul gis ngeen bi nga xamante ñu invité moom Moustapha Dieye dañ leen di jox dëgg di laje rek ba beneen euh, semaine prochaine incha allah waaxiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa taala wa Elvision Média abonnez-vous alhamdulilah. asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk internet yi waaye mbokk ñi nga xamante ne ngi safo di seetaan sen Elvision Média ñu leen ziaru ziar bu baax man la sen xarit sen rak soxna Salimata Maron man leen indil émission bu bees tàq émission bi ñu naan taru dine ji taaru diine ji boo ko déggee képp koo xamante ni da ngay fës ak benn mag ñi da leen la sees fa nga nek invité la bàyyiwul tidian ba di layen ba di hadir bi ba ci mourid bi ak ñi nga xamante ñi ngi nek musique afro arabe bàyyiwuñ nek C'est une émission taaru diine di émission de tàkk muy am fi ci Elvision Media Médias bu vous ñu invité vous da ngeen ànd ci numéro bi 77 896 33 17 wala 78 106 73 81 Elvision Media, abonnez-vous Alhamdulillah